الله أكبر الله صلى الله عليه وآله وسلم ndawlu yàlla la yonent yàlla la ñu koy ñaanal xéewal ak mucc moom ak saxaabam ya ak ñoñam ya waaye ak képp ku topp seen yoon di ko gëstu di ko xeeñtu ba kerek bu si pénc mbokki jun mbokki lislaam suñu diine bi di diine lislaam bokk na ci lu mu tëral mooy jóg di faj aajo doomu aadama yi di xam seeni soxla di ci taxaw ngir mu àntu rawatina bu ñu xamee ni kii de dafa aajowoo ñépp xam nañu jamono ji weesu amaana sax ñu ngi koy dund ba léegi mbas mi bàyyi na ay séquelles yu bare bare bare bare bare amaana am na ñu doon liggéey seen liggéey wàññeeku amaana am na lu ñu daawoon jot loolu matatul mënatul sax faj dara ci ay aajo amaana am na ñu amul dara amaana amaana ci diine lislaam nag am na lu ñuy wax qada xawaïji naas jóg di fajal nit ñi seeni aajo di ci taxaw bal nit ki am ay jafe-jafeñ mu soxla ku ko defal intervention mu nekk ci lu dagan mu leer ni yow mën nga koo def nga jóg dox si waaye tamit sax nag mu nekk lu rafet lislaam bëgg na lu mel noonu ba tax borom bi subhaanahu wa di wax nii barewaan na lu ñuy déeyante suñu biir di ko waxante neen lu gën a bare amul njëriñ yiw amu si lu dul illa man amara bi sadaqa waa ji jóg na ci lu ko yàlla may mu jóg di dimbale jaam yi jóg di taxaw di faj seeni aajo waaye tamit maaruuf aw maaruuf mbaax fépp fu mu nekk mu jóg di si wax wala boog di jox mbaax fépp fu mu ti toll di digle nit ñi mbax di leen tere nga xamante modi safan ba waye timit di defarante diggante aw islahin bayna nnas ndax diggante yi bare na lu muy yaq lu muy am ay gàkk-gàkk ak ay tilim mu soxlo am ñu jóg dox ci wax si te yàlla motax motax ay tax aay lu ko terminé moy wa man yafal dalika ibtigaa mardatillah kooki di def lolu namu ci lenn lu dul jëmm borom bi subhaanahu wa taala yàlla gërëm ci ay jëfam loolu rek la ci namm loolu rek la ci jublu kuy def lu mel noonu nag naka bir ni suñu borom bi subhaanahu wa taala nee na maa ngi lay xaare ay tiyaaba yu bare bare bare bare bare bare kon lii de suñu diinee nekk na lu war nit ñi am ñu jóg di taxaw di faj aajo doomu aadama yi te yàlla moo tax fekk ñu ngi koy mën nag عبد الله بن عمر ci xadis bu mu jëlee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla de du jóg di dañ mukk di fajal aajo jullit ba nga xamante ni mi ngi jóg di faj aajo ay morom moromam ci ay mbokk ay mbokk jullitam yàlla day taxaw seen ay mbir ni ki noonu képp ku taxaw teggil nit ki tiis mu nekk ci ay jafe-jafe yu tar nga fexe fexe fexe ba loolu dañ ne la leer ni sa taxawaay boobu nga taxaw yàlla dana la taxaw ëllëg dana la taxaw ëllëg yowmal qiyaama teggil la nattu teggil la tiis ëllëg yowmal qiyaama ana kan si ñun bëggul yàlla teggil ki tiis ëllëg yowmal qiyaama tontu bi danaan amul ci kaw suuf kenn ku nekk bëgg nga ëllëg yowmal qiyaama nga sauvé sa njaboot sauvé kon jógal di taxaw ci aajo nit ñi feeg yaa ngi koy yaa tamit yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni wa man satara mus wa man satara musliman ku suturaal jullit waññiwoo suturam xamal nga ko dara nga noppi ngir suturaal ko lislaam loolu la bëgg képp ku ko def ne la leer ni ëllëg yowmal qiyaama yàlla dana la suturaal yàlla dana la teggil tiis rawatina jamono ji ñuy dund jamono réseaux sociaux yi loo xamul nit ki wax loo dégg nga nettali déedéet jullit dafa war nekk ku am sutura nga xamal ko ba mu leer na ni xamal nga nga noppi ndax nettali ba amul njëriñ nettali ba amul njëriñ mbokk jullit mbokk lislaam jullit dafa war nekk ku am sutura ñu la dénkee walla ñu indil la ay xibaar wala nit ki confier la mbiram xool na ñëpp yow yaa ko ci doy wax dëgg yàlla confiance boobu mu am ba wax la ay mbiram war nga ko nëbbal war nga ko nëbbal bu ko waxal même bo xamé ci waxul sax yow bul wax ndax kenn ku nek na xol ay ay sikki bopam bala muy dem di xol ay sikki mborom moromam lolou lu am solo mbokki si mbokki l'islam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam leral timit ni jóg bu ngay jóg di fajal nit ñi seen aajo bokk ni ci jaamu yàlla yu gëna reey yu gëna mag yaronte bobé alayhi salatu wasallam bu nit daawoon ñëw garal ko ay mbirum danaan saxaaba yi ana kan moo si jóg ana kan moo ngir taxaw bu boobaa tu jaru yàlla fay leen waaye tamit yàlla dafay jaarale fajug aajowu nit ki ala lisaani rasulihi sallallahu alayhi wa sallam yenn saa yi nit dana ñëw wax la aajo fekk mënoo ci dara nga jóg dem seeti ku mën mu defal ko aajom mu fajal ko aajom كن بوبابا يبت يالله سبحانه وتعالى دفلاي فاي نخ الدال على الخير كفاعله بوكو جيرين بوكو الاسلام سي نانت عليه الصلاه والسلام داون وخني من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل كيب كو من نجرين بوكم ندف ديف بو سي يالله موتاخ فليفعل ندف تجف تي جيف غوغو دارا ورول نيك سي lu dul di sakku tiyaaba ak ngërmande borom bi subhaanahu wa taala moo tax ci beneen xadis ñu ni kenn musula laaj yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mbir ab dara fa qaala la ba mu ni déedéet képp ku ñëw rek moom alayhi salaatu wa salaam daawoon na taxaw say mbir ba benn waay sax lu rëy la def yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di dem ci mbeddu Medina yi waa ji ñëw doxee yonente bi gannaaw poñee ko gannaaw téye mbubb ba mu dëgër bif ko këcc ko ba saxaabi bi nee na ñi ngi gis yére bi mbubb bi nu mu deretelee dereetal ci doq yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mun ki yaa muhammad aat aatini min maalillahi lazi aataak yow muhammad dama bëgg nga jox ma ci alal gu la yàlla jox yonent bi alayhi sallallahu alayhi wa sallam tourné xool ko mu laaj julli saxaaba yi ni leen est ce que baytul maalil muslimin am na dara ñu ne ah kay fa amara lahu bi ata yent bi sallallahu alayhi wa sallam ni xool leen lu fa nekk ngeen jox ko xool leen taxawaay boobu mbokk jun mbokk lislaam kenn si ñun tey bu doon dem ci mbedd ba ñu bif ko xëcc ko ni ko jox ma si alal gu la yàlla jox dal moo doon sa réaction yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aljaariya xale bu ndaw daaw na téye loxoom di ko xëcc di ànd ak moom ci mbeddu Medina yi mu koy topp di ko topp ba xale bi amul benn aajo waaye mbiru xale la rek day dox rek ba mu neex ko rek mu bàyyi loxo yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon faj na aajoom loolu moo doon suñu jukkoo yonente alayhi salaatu wa salaam nag saxaaba yi ñu déggoon ko lool xamoon ko lool toppoon ko ci jikko yu rafet looyu aboubacar siddiq jamonoy màkk bu mu tare ñii ñu leen di mbugal ngir gëm guñu gëm yenen tibbi alayhi salaatu wasalaam ñom bilal ak ñu melni mom abou bakkar dem gorel ci juróom-ñaar ci ñom li wajhi allah taala fi sabilillah nam ci dara ludul am ci ngërmaande borom bi subhanahu wa taala bilal ak ñu melni mom juróom-ñaari nit def ko gudul bëgg ci tiyaba ak ngërmaande borom borom bi subhanahu wa taala عمر بن الخطاب رضي الله عنه دا توك بو غودي مو جوب دي دغ دي لنج بوت دي خول كير ني ني تدي الارامل اي جيجين نيغا خامتيني سين اي بروم كيتو نيو فاتو امو ني دوله مون ني يلوان مون ني يو نيان مو ديم دغ خول سين اديو تي داون ني غيس سين اديو داون ني سوخلو ندوخ دونو مانا روت بيتك عمر ديم تي غودي روتال لين انديل لين تي موي امير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه عثمان بن عفان رضي الله عنه يرنتي بي صلى الله عليه وسلم نيك أنا كان موي جند بئر روما بئر روما بن تين لون أي جيف نيوكو مومن تي مدينة النبوية دي خان نيو لن نيخ دي جوخ نيو لن نيخ نيو رود جوليت ني امون جافي جافي نيو ام علال نيوم رك نيوي جند mu metti lool ci jamono jooju ci wutum ndox yonent bi ñaax saxaaba yi Usmaan ibnu Affaan dem gis juif yooyu ni leen dama bëgg ngeen jaay ma teen bi ñu bañ gannaaw ay discussion ñu ngi ko daañu la jaay genn wàllu teen teen bi teen bi temps jar mais jox ñu genn wàllu njëg li bu boobaa ñun ñooy root bés beneen bés bi si topp jullit ñi doog a root noonu la demee ba jullit ñi am xereñte bu ñu waree root pour lu leen di doy benn fan ñu root lu leen di doy ñaari fan ba juif yi dootu ñu gis kenn ku ñëw ñu ni soxlootu ñu teen bi dem gis Usmaan ibn Affaan ñi ko ñëwal jënd teen bi bépp mu ñëw joxe njëg jënd teen bi fa asbaha lil fuqara wal masaakin waaye tamit walil agniya wabni sabil teen bi ñépp ku mujj a bokk ñu am alal di root ñu ñàkk di root ñuy tukki tamit buñu ñu demee ba egg si foofu di root kew ku ko def mooy Ousmane bin Affan radiyallahu anhu Ousmane waajoo nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni man yujahizu jaysh al usra falahu l janna ana kan mooy préparer armée bi ñi ngi waaj a dem xare xare bu sore xare bu metti ghazwatu Tabuk presque sore na ak Medinatu Nabawiya lu mat juróom-ñeenti juróom-ñeenti téeméeri kilomètre armée bi amuñu doole ana kan moy préparer armée bi yalla fayé ko aljana usman muni man ya rasulallah dem kërëm indi fas indi gëléem indi jasi indi alal bu bare juug ko ci kanamu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yaronte bi bég ni usman lepp lu mu mënti def dootu ko lor aljana la jëm radiyallahu anhu wa arda tian bobu nga xamanteni mom la jëndon ba tay mi ngi ball medinatu nabawiya alayhi salatu wasalaam ñu ko wax rumah. am na benn ministère bu ko bu ko yor ca Medinatu yi ba tey xool leen Ousmane bu muy jënd teen boobu am na léegi junni at ak ñeenti téeméer ak lu topp Ali ibn Abi Talib benn waaye ñëw ni ko yaa amiral muminin man de dama am ajo mais aajo bi nag ne la bir ni diis naa ko yàlla balaa ma la koy diis mu ni ko bisimila Ali ni ko déedéet bindal sa aajo ci suuf ma gis ndax ragal naa soo jàkkaarloog man di wax sa aajo may sentir ab wàññeeku ci sa kanam bindal aajo bi mun ko yaa amiral muminin dama am aajo nangam nangam ali yónnee këram ñu jël mbubbam mu ñoo jox ko waa ji waa ji sol ko fasaasi xam nga ñii déggoon nañu xamoon nañu lan mooy dimbali nit ki te yàlla moo tax ndimbal googu nag dafa am lu koy yàq jóg di faj aajo doomu aadama yi dafa am lu koy yàq loolu mooy al man ngay kañu foo toll man maa def lii man maa defal diw man maa maay maay dog dog bu mu gàccee yi ñu lay tagg wala jaar yu mel noonu jullit daf ko war a daw ndax arab yi du ñuy wax laa xayra fil maarufi ida uxsiya ne ne mbaax moom bu ñëwee ba koy lim naan maa def nàngam maa def sàngam amatul njëriñ amutul njëriñ li ngay def nag bu fekkee mbaax la ñett yi faw mu am ko benn taajiluhu mbaax dafa war a gaaw doo gis nit ko aajow am soxla nga mën ci taxaw ngay benn bennal di benn bennal ba aajo ba weesu wala sax amaana kii duñ ko war a faj faj bu gaaw ñuy xaar di muñ ba mu faatu kon taajiluhu gaawee mbaax ma lu am solo la beneen bi mooy tasxiiruhu mooy dañ ko war a tuutal loo defal nit ki ci mbaax na tuuti ci yow bu mu rëy mukk lépp loo defal nit ci mbaax jàppal ni defal naa ko lu tuuti mais fa yàlla moom bu fekkee moom dong moom moo tax ngay def dana nekk lu rëy lool lool lool lool lool lool. beneen bi tamit ñetteelu mbir mi mooy mooy sitruhu mooy dañ ko war di nëbb nag am nay mbaax mën nga ko feeñal mais yenn saa yi am nay mbaax boo koy def def ko te yàlla moo tax kenn bañ ko yëg te mën naa nekk. كن بنكو يك تمنى نك يوي دال لو بروم خام خام دي وخني بو فكي مباخ بو منتي ديف امنا يو مل نونو سونو بروم سبحانه وتعالى دنج سي ديف توفيق كون ني ني جابلانتي ني ني ربلانتي المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا جلد اك جلد ليلا نيلا يرنتي بي صلى الله عليه وسلم ديف مربل اي بارامم تي بو مو دغر ni julit ni la wara a mel ci ci ab julit waaw do ko nax do ko toroxal waye timit do xaw yi suturam amna ñu mënul ñaan amna ñu mënul talal seen loxo ngir ay raison yu bare bare bare bare bare bare ñu xam leen ñu dëkk ci koñ bi ñu nekk fu jege ñu nekk fu sore nañu jël ci lu ñu yàlla may ñu joxe ti yàlla moo tax ti mën nañ ko damay wax ni sénégalais yi am na ñu am alal de mais yene sa yi alal gi fu muy jëm modul fof am na ñu am alal lool yalla yalla barkel seeni alal mais yene sa yi da fay ñew di la yobul sa alal di ko dugal fa nga xamanteni du fofu du fofu lu jara bayyi xel la am nañu nañu def ci borom subhanahu wa taala motax di ñaan yalla yalla defal ñu tawfiq yalla sam ñu sam suñu alal yàlla subhanahu wa taala mbas mu ñuy dund yàlla subhanahu wa taala yàlla jëlé ko fi téggé ko ci adina bépp nak ndax téggé ko ci adina bi moy suñu jàmm ñun ñëpp di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla jéggal ñu jéggal mbolum julit suñu way dawlu yi ñu jitu yàlla neena yàlla jéggal yàlla léral seen bammel yàlla subhanahu wa taala xaaree leen àjjana te ñu net buñu faato yàlla jéggal ñu yàlla xaaree ñu àjjana اللهم اعز الاسلام islam واذل muslimin والمشركين mushrikin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله حي